jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di jaajëfal ñu àndaan ak yéen ak euh, Adji Sarr ginnaaw bu audio yi génnee jëm ci askanu sénégalais yéen ñenn ci yéen nag jot nañ ko déglu muy lim liste ba nga xam ne nii ñoo jot a jaar ci kawam. ojo yooyu nag lañ leen di digtalaatal àndaat ak yéen déglu undoo audio yi ak yéen nañ ànd déglu li Adji Sarr wax. yaa Farba Ngom xaw ma ko. yaa Mor Ngom xam naa ko Farba Ngom xam naa leen. waa yaa Ameth Il y a Mambo Diao 2. Il y a Mambo Diao, on donné numéros. Il y a Antoine Diom. Il y a le ministre des Finances ADD. il y a, je sais, non, le ministre de Finances, je ne sais pas, M. Diop, je ne sais pas. Il y a Pape Samba Diop. Peter Ladjouf, commandant Brimofal, il y a Bougan Gaydani, il y a Maître Abdoukali il y a Maître Abdou, Jaylani Nikan, il y a Mamo Diallo, il y a Kriku Abdoumbo, il y a Ali comme euh, Bougane kon Bougane xam nga ne xam nga. au xam nga xam man Bougane waxoon naa leen am na lu muy liggéey gouvernement bi. <laughs> xam nga waxoon naa ñii ñii moo tax ma ne la seen góor dina daan te su ma ñëwee liste bi yow laa koy dénk nga teel ma ko ba au bon moment. jëf mbokk internet yi kon kàddu yooyu ñoo ko bokk dégloondoo muy kàddu yi nga xam ne ni Adji Sarr na ko jëmale ko ci list boobu nga xam ne ni bindoon na ko. ne da koy jox Baye MC pour mu téyel ko ko pour bu jamono naqaree mu mën see défendre boppam audio yooyee nag génn na list ba génn na list boobu nag ni ko Adji Sarr waxee loxo dem na gémmiñ ndax lim na si ba lim fi kilifa diine goo xam ne foogee wuñ ko ko woon.